ñi naan euh, simmeeku ci euh, anam boo xamante ni euh, warut ci say kanamu élèves yéen ñaar yéen a koy peeloo incha allah parce que on incombe aussi les professeurs de PS et les professeurs de de sport ci amphi wala ci université wala ci lycée yi on parle de l'éducation globalement. Mm-hmm. nee nañu professeur jeunes yi léegi amuñu coaching bi war pour mit bi des maanaam dañuy doxaan ci xale yi te doxaan ci xale yi mooy indi xale yi. di am fit dañ leen di miin di leen te sama genre dañu wow bët. xool nga ne leen je t'aime benn yoon rek ñu commencé dugg sa biir caaya. après vous coach je vous en prie. <laughs> non euh, euh, xam nga affaire bi li ko indi yëpp mooy li maman wax ak professeur li mu wax léegi sa professeur dana daan mag de benn day mel ni comme papa lay taxawee wala yaay wala tante ñaareel bi professeurs yi daan nañ jàng ba def seen cursus ba mu mat sëkk ñu am diplôme yi ñu war a am. je n'ai rien contre li ñuy wax vacataire ah. ay ñu mën jàngale lañ ñu baax lañ mais bi ñu demee ba xar matt xew ut xaalis xew gars yi xaaratuñ xam-xam bi ñu war a am pour être un éducateur wala un instituteur xam nga enseignant dafa am éducateur am instituteur am gis nga li ñuy wax yar jox nit yar nit nit da koy éduquer mais mala dañ koy élever il faut que ñu def des choses mala da nga koy élever mais nit da koy éduquer donc bu di professeurs yi demee ba tolloog te li asma di wax li tax loolu am boo tollee benn génération ak nit ki ngeen magee ko lu bari nekk professeur mu ñëw di solu benn tenue vestimentaire mu indi c'est pas décente li muy sol presque moom la c'est la nouvelle génération 2.0 la xale bi sa morom la li nga ko magee bariwul mais subitement day am ay liggéey di wax interférence day am te bu boobaa onde yi bu ñu bokkee même onde yi ñuy demandoo pour nga jox ko euh, euh, xam-xam bi war tout le temps dafa am benn benn benn benn onde négative buy génn foofu parce que yow da ngay am complexe xale bi jigéen mel na ni mu war a mel yow taxawoo taxawaayu professeur war ne ko man dama ñëw pour jàngal la war ne ko man sa tuteur sa sa sa professeur la wala sa sa instituteur la tout le temps day am lenn loo xam ne dafay des donc bu ñu demee ba professeurs yi ak élèves yi ñoo maase professeurs yi xam-xam bi ñu waroon am amatuñ ko xaalis moo leen ci gën a teel a dugal et à chaque fois formation bu matule dafay répercuté wu ci élèves yi. alors Mamadou Fofana pour euh, rebondir sur euh, sur yow. Mhm. mooy que professeur tey jii naam démb euh, takk ci seen élèves man gis naa professeur bu takk élève mais parce que doonuñu woon foo est-ce que du foo mu bëri mi nga xamante ni professeur jeune professeurs yi wala jeune maîtres yi di amal seen diggante ak ñi nga xamante xamante ni ñoo di élèves yi mooy indi problématique boobule nit ñi amatuñu euh, euh, frustration bu ëpp bi pour la gente euh, féminine la gente masculine politique yi fas yéene leen désorienté mhm. waaye itam la jeunesse qui aujourd'hui professeur Sanoussi Ba wax na ko fii da ngay gis élève bu ñëw defal la piercing en classe piercing ci làmmiñ ci bakkan ci li ni mel alors que dans un premier temps